sunu dëpp sëriñ bi mu ne asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ bi nee na mi ngi nuyu mboolam mbokki taalibe yu fi teew yëpp nee na mi ngi jiital ci nuyoo bi sunu kilifa gii toog di la liggéey bi nee na mi ngi nuyu mboolem taalibe yépp di leen sant bu baax di leen gërëm ndax dañ leen a woon ngir jëmmi yàlla ak Cheikh Issa ak Serigne Touba ngir la liggéeyal Serigne Touba ngeen wuy sinu nam rafete defe ko noo xam ni kawe na njortam nee na kon sat na leen bu baax gërëm na leen bu baax taalibe yëpp bayiwul kenn fépp fu waay bàyyi ko rek ndakaaroog mbuur ak xabbaan ak kajoor la ko wër cees mboor ak la ko wër tuuba fépp rek fu mu lim ak fu mu fépp nee na mënu koo dajal waaye mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp nee na lim leen fi wooye woon defe ngeen ko nu kawe njortam ndax liggéey bi bu fekkonte ni ngelaw li gelawoon na démb nee na kon yaakaar na ni lépp mënoon naa sotti démb kon nag nee na moom mi ngi sant yàlla bu baax di sant it Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mi nga xam ni moo ko joxoon ndigal li ndax ku lay liggéeyloo ku ne dalaa bëgg a jariñ te bëgg noo jañ rek moo tax mu nuy liggéeyloo ba Bassirou mii nga xam ni tool bii mooy jëwriñam mu def ko fi ngir jëmmi Serigne Touba moom it ñu ngi koy sant bu baax ndax bu ko fi deful woon duñu fi mën a ñëw ba defi def lii te liggéeyal Serigne Touba ci la sunu njariñ nekk adduna ak àllaaxira moo gën lépp kon nag képp ku la ko def loo war nga koo sant bu baax kon moom it sant na ko bu baax nee na mi ngi sant mboolem taalibe yëpp di sant bokk yëpp di jiital ci cant gi sëñ Basiiru Jenn mii nga xam ni moom la defoon jëwriñu liggéey bi ak mboolem rakkam yëpp ñu ci bari teew nañu fi sëriñ Souhaïbou mi ngi àndoon ak moom fu mu taxaw mu taxaw fa ak Cheikh Abdoulahat ak sëñ Jiili ak Cheikh Ibrahima sëñ Bakken ñëwoon na fi waaye dellu na sëñ Yuusuf dellu na waaye ñëwoon na démb nee na xam na ni lim bi nag dadul a lim ñëpp jawriñ yeeg du mën a lim ñëpp ndax day bañ a waaye kilifa yi nga xam ni seeni maam dañoo àndoon ak Cheikh Issa bala Serigne Touba defaloon Cheikh Issa defal leen ko boole leen ak mbooloo lenn ci ñoom. ñoom it teew nañ fi waaye damay tudd rek li ñuy dalilu kër ga bàyyi mbooloo ma waa kër Seex Daaru ngañ tànni ñëw nañu nga xam ni seen maam moom lañ tudde Serigne Naar jenn mii bokk ci bokk ci giiri naar yi nga xam ni ay tàndax yu lañu te tànni ni mooy tàndax yu ay shérif lañu seen maam ñett ñi njëkk a sopp Seex Isaa ca ñooñee bokk waa kër maam Mor borom daaru ñoom ñëpp ñëw nañu waa kër maam Ali ñi nga xam ni seen maam ñoom itam bi muy ànd ak Cheikh Issa booba Cheikh Issa jébloogul sax ñëpp ñëw nañu waa kër sëñ Daam Surang ñoom it ñëw nañu waa kër sëñ Mor Mati Wadd ñoom ñëpp ñëw nañu te kenn ku ci nekk danga ngaa ak mbooloo kon nee na ñu may ko rek mu yamale foofu lim bi ndax bu duggee ci jëwriñ yi du ko mën a matale te it mënta tudd ñëpp te bëggut a tudd kenn bàyyi kenn transporteur yëpp nga xam ne liggéey bi li ci ëpp solo ñoo ko def indi mbooloo mi delloo leen loolu ñoom rek ñoo ko man muy borom wata yi sant nañ ñëpp nee na bu delloo fa mu leen wooye woon dinaa bindaatu communiqué kenn ku ne mu jaar ci turam sant ko sant nañ sa force ñëpp na yi nekkoon ci waañ wi sant nañ leen bu baax nee na mi ngi ñaan nag nu teewee ko nagani déwén nee na liggéey béet sëriñ Basiru mii ko def nee na wax na ko ministère bi démb nee na defu ko ngir wut xab xaalis defu ko ngir wut am koom liggéeyal sëriñ Touba moo tax mu def ko nee na loolu wax na ko budul benn wax ko ko budul ñaare te di firnde ji li fi génne daaw ci loxoom moom mii la ko teg mu ànd ak sëñ Jili Njaay mii jébbal ko sëñ Muntaxa ni ko tool ya ma digaloon ma liggéey ko muy coolu sëñ Basiiru Mbàkke ya la ca génn ngi nii nee na yow mii yaay sëriñ Tuubaa yaa ko moom moo la ko doon liggéeyloo te nee na léegi nit waxaat na ko moom sëñ Basiiru mii ni ko lépp loo fi amee lu mu bari bari bari lu mu néew néew nam ko defoon rek la koy def nee na liggéeyam sëñ Tuubaa rek la ci jublu ndax moom su ma ko xamul it miin naa ci moom dara nee na miin na ci moom lu bari lépp lu koy mën a waxal bëgg sëriñ tuuba ak gëm ko ak jeex ci moom fonk ma ñaandoon ak moom da leen di waxtaane fu mu toll nee na foo xam ne bu koy wax ku bokk ci kër googa sax du fa nekk nee na loolu lépp nag bëgg sëñ Tuubaa rek a ko waral ndax ñoom mag ñi ñooy jëf sëñ Touba kon nag lépp lu waa si ñoom rek sëñ Touba nga ko waxal taalibe yi nag taalibe njënd yi nag mel na ni am na lu leen daa faral di nettali mel na ni dégg nañ ko nee na dégg na ci sëñ Baara Jenn mu ni Cheikh Issa moo ko nett caw làmmiñam sëriñ Touba da koo mas a laaj ni ko Issa mbaa amoo benn taalibe bu nanguwul a liggéey nee na Cheikh Issa ni Serigne Touba Mbacke aw ma ko wala bëriwul mu ko soo ko amee na nga ko wàcc taalibe murit bu ko Serigne am mënta liggéeyloo du ko jox alalam mënalu ko dara mënalu ko dara tey ak ëllëg kon nag yéen loolu mel na ni xam ngeen ko ba buñ leen woo rek ngéen ñëw ak seen yéene ak seen pësteef defe ko nu kaay njortam kenn ku ci ne. la nga fàggoon bi ngay ñëw sax am na ci ñoo xam ne jeexaluñ ko kon na sant na leen bu baax sëriñ beet taxawu bi ak yitte ji nee na da koo wax ni ko sëriñ bi dafa mel ni daa ëpp ndax nun kat li mu xamoon bu nu sëñ bi bu naa masaan ak sëñ bi di liggéey sunu waajur sëriñ naar mbaarum ngeer lan koy defaral defaral ko sunu bopp xel koom gii nekk nañ fa ribib ëkk weer wu manqué ñaari fan te ci loolu la sëriñ bi nekk ñu nekk ca loola di lekk mbaxal yoo xam ni daanaka ndox rek lañ koy defaree kon nag lii moom bu ko defee da koo def ngir xéewali sëriñ Tuubaa rek moo yokkoo noonu mu def ko kon nag san na ñëpp gërëm na ñëpp yal nañ ko teewe naga di déwén mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nee na bokki jullit yi bokki taalibey murit yi fi nekk yëpp rawatina njabootug Cheikh Issa Diène nee na mi ngi yëkkati kàddoom ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Mahmadul mi fi jëmmi Serigne Touba di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko wér. ba mbooleem li mu yéene ci liggéeyal ko Serigne Touba suñu borom may ko kattan ak wér ba mu àggale ko ci barkeb sëriñ Touba nee na mu yëkkati kàdduy cant yu bàyyi ko ci Serigne Touba si Mamadou Mountakha kàdduy cant yu ànd ak jëme ko ci jëwriñam ji di Serigne Sidi moom Serigne Naar Jenn ak nag mbooleem njabootuk Serigne Naar Jenn gépp ak mbooleem njabootuk Cheikh Jenn gépp Serigne Sidi Serigne Muntaxa nee na mi ngi lay sant bu baax di la gërëm ci ndigal lii nga xam ne moola ko joxoon daaw joxaat la ko ren te la tax mu jox la ko it mooy sa pësteef ak sa taxawaay ak saw doxin ci yoon wi mu waxaat ko ne ko na la wax na la sa diggante ak moom ca jamonoy sëriñ naar nee na la la seetantal ba seetlu la bu baax gis sa pëseef ak sa dogu ak sa yitte mu fasante ak yow këllëre nee na loolu yàgg na lool booba toogagut ci jataayu sëñ Tuubaa bii waaye nee na mi ngi lay xamal ne la yaakaar jam amoon ci yow ak pësteef ba mu ci yow daa dolliku nee na li ko waral jëf yi ngay jëf di ko jëf ci kër Serigne Touba wuute wut jëf jëm maam Cheikh jëf ci kër Serigne Touba ga kon nee na na wóor ne sa maam Issa day xolam sedd na ci yow ndax noonu rek la daan def ci sëñ Touba te noonu ngay doxe ci moom lépp lu fa xew sa jëf kenn du la ci man lépp lum la digal doo naaslu da nga koy daal song rek <clears throat> mu daanu kon nag nee na mi ngi lay ñaanal bu baax yaag mbooleem ñu topp ci sa ginnaaw di say rak di say taalibe yal na leen sunu borom defal pajuk aajo liggéey bii ngeen di liggéeyal sëñ tubaa yàlla na ko sëriñ tubaa tàbbal te liggéey ba maam seex Issa daan liggéeyal sëriñ tubaa nee na liggéey bii yàlla na tàbbi ca liggéey booba te nee na moom rafet na ci njort bu baax waaye nee na ak cantam ci yow am na fu mu tàmbalee de waaye amul fu mu yem ndax nee na moom yàlla da koo nattu. ma ne wut sax di santaane waaye xam sa xol te xam ne foo toog fu ne tuglu liggéeyub sëñ tubaa rek moo la fa bàyyi te lii ci sëñ tubaa rek la jëm nee na moo tax mu sant la ko kon mi ngi lay ñaanal yoon wi nga dëgmal yàlla nga àgg te dara bañ laa gàllankoor te nga sut maam Issa aw fan ak sëñ Baara ak sëñ Naar la ca nag kàddu yu gàtt lay doon ndax jataay bii day jataayu pësteef ku gis jataay bi ni mu deme xam ne kat sëriñ tubaab beral na waa Njenne xas nee na ndax Cheikh Issa sunu borom da koo defal tawféex Serigne Touba bëgg ko lool may ko lu bari ci moom. amutoon sax fu mu ko yamale ci boppam lu ne mu man ko koo laaj te li ci ëpp ci doomi sëriñ Touba laa ko jëlee muy Serigne Sonhibou ak sëñ Abdou Khadir wala sëñ Saliou kon lu wér a la ci ëpp solo mooy jumaayi njaareem ji bam ko koy digal da ko wax ne ko sunu borom kat moo ma digal ne. jumaa ji naa ko jox Cheikh Issa Dieng mu taxawu ko te yéen a ko gën a xam loolu. nee na ba mu àggee itam Serigne la lam julli si ja jumaa ja bariwut ñaari xiit la fa julli waaye ba muy dem ca jumaa ja booba ñaari otoy yi kilifa yu mag ña nga fa ñu gaare ngir bëgg sëñ Touba dugg ci seen oto yooyee waaye dañ koo yëkkati. ba oto Cheikh Issa ñëw sëñ Touba dugg ca oto Cheikh Issa ba ànd moom Cheikh Issa ci biir oto ba kon moom taw feex ji mu am ci sëñ dafa bari la ca gën a yéeme laajoon na sëriñ Touba ne ko dafa am kat lenn ci suñ bokk yi yooyu wax ne ashabtum tayibaatikum fii xayaatikumu dunya loolu nag jaaxal ma lool ma ne naa ko laaj ba xam Serigne Touba ne ko Issa de sama mbir mii li ma ci sëñ borom xamal mooy haza hata una fam nun awam sik bi xayri isaabin loolu képp ko yaakaar sëñ Touba rek sëñ Issa tontuwaaleel na la kon moom daa amoon rek tawfeex ci sëñ Touba sëñ Abdou Khadir daana wax ne sëñ Gaawaan ak Seex Isaa ñoom ñaar day mësuñoo gis merum sëñ Touba lu sëriñ Touba nekk nekk ci xaal bu leen séenee rek xaal ba daal di jeex takk kon yéen loolu liggéeyub Seex Isaa boobee moo leen tabbal ci biir liggéey yii yëpp da daan def itam lu xalaat rek na sëñ Tuubaa bëgg na ko bala ko ko sëñ Tuubaa laaj mu yë mu dem wuti ko andi da daan def lépp lu sëñ Tuubaa xalaat bala ko ko digal mu dem wuti ko andi mu dem wuti ko andi ba mujj sëriñ Tuubaa fa mu romb ci njaareem rek sàkket yeeg ak lu mu romb rek mu ne ko bul fàtte Isa ak waa këram kon yéen na seenum xel dal bu baax. bu baax a baax a baax sëriñ tubaa waxoon na sëñ Issa ne ko gërëm naa la ngërëm loo xam ne ridan laa suxta baxdahu na ko it gërëm naa la ngërëm loo xam ne defar nga ba faw ba dara mënatulaa yàqal ba man mii sëriñ tubaa Touba defaroon la mënatuma laa yàq yow it mënatoo yàq sa bopp waaye Cheikh Issa na ko nag lépp nag jël naa ko defaat ko pas-pasub liggéeyal la ak jaamu yàlla rek kon moom yéen daal sëñ Issa leen fàggul lii ngeen am kon nag noo ngi ñaan ci barkeb sëñ Touba ak liggéey ba mu liggéeyal sëñ Touba ba sëriñ Touba dëxaloon ko ci àdduna ba muy tabax taax ma ca ndànd na ko bu àggee danaay fa ñëw seet si la far sëriñ bi ñibbi si Touba te sëñ Touba lu mu wax dana ko def ci làmmiñu sëriñ son yi bu laa ko déggee nam ko ko dële woon noonu la ko fekke foofa def foofa def faak moom lu bëree bari wax moom lu bëree bëri bokk na ca li mu doon netti naar kan toogal toogal rek waaw da da ko ne yoon wi day alfulkul masxuun la daa mel ne gëléemuk tukkal goo xam ne luñ ko teg attan ko lum diis diis bam tes nag attana mooy tubaabe na ko lool nag sunu borom waxante na ci ak man ba xamal ne ma lu toll ne puso attanu ko ci kon nag yéen Cheikh Issa musal na leen ca ndax njabootam gépp ku leen gis xam ne ay murid saadix rek lañ melokaan ya murid ya meloon démb ku ñëw fii xam ne pas-pas boo dara sëpp ko ci kon moo leen ko fàggul kon la taxoon sëriñ Touba mu jaral ko ñëw ci àdduna mu gis ko nam ko daan gisee kon kooka ab cërëm ci sëriñ bi te lañ fa waxtaanee. am na ci loo xam ne mënees ko wax ci kon sant ak ngërëm rek di ñaan ci barkeb Serigne Touba ñu teewaat fi na gën a déwén fi waay jëf lum tuut tuut yàlla na ko sëñ Touba nangu ndax sëriñ bi kat istara minal muminina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul janna kon la sëñ Abdoulaye waxoon sahaaba ñooñu jiitu ci diine waaye nag luñ ñu gën gën waruñ ñoo ëpp jom waruñ ñoo gën a gore kon nañ fexe ba suñ dund gépp ñu liggéey jeexal ko ci liggéeyal sëñ Touba liggéey bii nag fi may jeexale ci barkeb sëñ Touba yàlla na ko sëñ Touba tàbbal te liggéey ba Seex Isaa doon liggéeyal sëñ Touba na ñoo ngi koy nangu ko baax te yàggal fi nag jëwriñam bii di sëriñ siidi

te mu war a